jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur euh, Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës ñaari fan kepp ci des muy suba ak gannaaw suba ngir nag Yaya jàmme war a jébbal nguur ga Adama Barrow euh, fële ca Gambie ñu bari nag ne duñu ko fa xaar bari na loolu ay daw làkk yoo xamante ni nii jóge nañu Gambie euh, ci teelu weeru janvier bi ngir daw làkku ji fële ca Sikicoor ba ci sax commune yi nga xamante ni nii ñoom ñoo féetee ca frontière ba ki fi nekkoon jëwriñ dénk lépp lu jëm ci biir réew mi nekkit njiital mouvement bi di libéral ca kanam Ousmane Ngom moom ma ngay euh, sàkku nag euh, nee nañu jiital wàllu diplomatie ci gis-gisam waaye tamit lépp luñ ca mën a def nañ ko def ngir Yaya jàmme able ca nguur ga euh, Seydina Oumar Sy nekkoon na jëwriñ di dénk lépp lu jëm ci jëflante ak biti réew mooy ganu xibaar yi tey Seydina Oumar si son excellence maa ngi leen nuyu maa ngi lay fay. Eh, ci kanam tuuti daan waxtaanee lu aju ci wàllu eh, Gambie ak ni ma ko waxee ñaari fan kepp des eh, ci Yaya Jammeh war a jébbal nguur gi Adama Barrow beneen fonk ci biir xibaar yi njiitu jëwriñi Mahammed Boun Abdallah Dionne sàkku na nag ci responsable APR ya nekk ca Louga ñu joxante loxo liggéey ngir am ndam ci woteek législative yi ñu dëgmal njiitu jëwriñi ma nga woon ca diwaanu luga ku jëkk politique moom newuñu tekk ndax ñoom it ña ngay wane amal benn liste euh, ci législative yi ñu dëgmal moom it ma nga woon ca diwaanu euh, Louga ni ñuy fexe ba wàññi accident yi ci euh, Sénégal ci tali bi nguurug Sénégal dogu na ci du yàgg lool dana am ay coppite yoo xamante ne daañu ko teg bokk na nag ci lépp loo xamante ni jëm na ci document di jumtukaay yi ñeel wàllu dem beeg dikk bi ñu gën a fexeen ba mu mucc ba mu maanaam dëppoo ko jamono jaarale ko ci xarala yi waaye tamit permis à point yi bëgg nañu cee taxaw tàggat yaram Sénégal mi ngi nekk kon ci place bi rawagum na ca groupe ba mu bokk gannaaw ndam li nga xamante ni am na ko démb ci kaw Tunisie ñaari bal ci euh, dara Sadio Mané ak Kara ca ñëw sauvé Sénégal démb ci seen janook Tunisie mbokki ponk yaa ngi ni ci yaatal gi ci léegi léegi. jaa ngeen jëf ci ànd télévision Future euh, Média niñ ko waxee ci ponk euh, xibaar yi li ci des ñaari fan képp la ngir nag euh, Yaya jàmme war a jébbal nguur ga Adama Barrow muy suba ak gannaaw suba ñu bari nag ca Gàmbi nee nañ duñu ko fa xaar ndax bari na ay daw làkk yoo xamante ne nii bi weeru janvier bi tero ñoom tàmbali nañu génn Gàmbi daw di làkk te ji fële ca diwaanu Sikicoor rawatina ak commune yi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ca frontière ba naka noonu ñu Sikicoor ba dalal daw làkk ñooñee ak gone ya ñu àndal inspecteur d'académie ba moom nee na ma nga cee def kéemtalaay kàttanam ngir lépp nag mën a jaar yoon bu Boubacar Dias yi ñu ngi wéy di ñëw ci diiwaan bët Saalum réew mi ñu nemmeeku ji leen ci biir famille. ku leen indi seen yaay. ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay kon man ak kooku dañu bokk ndey ak baay sama njaboot njabootam lañ njabootam yi samay njaboot lañ affaire bi bu mu commencé woo naa leen ma laaj leen mais nag démb la ma woo mu ne ma ah suba de bu soobee yàlla di nga am gan yu bëri ma ne ko lan la mu ne ma maa ngi génnee si xale man ma ko boo leen ñëwee seen kër ngeen ñëw. préparé wu ma ko parce que euh, je euh, léegi laa jot ne sama njaboot gi war nañu ñëw au nombre de neuf personne yokk ci cinq vraiment c'est une surprise il faut ma jël leen situation bi moo ma moo ma obligé ma jël leen. soxna si bokk si ñoom. a ah, ndaxam suñ dëkk bi daanaka jaama mu fa jaama nekkut foofu tuuti because fuñ nekk ni boro njaboot yi seen xel yi daluñ because soo amee njaboot bu sew te sa dëkk sa xel dalul foofu noonu foog nga génnee sa njaboot yi sew yi nga yóbbu leen fu sa mbokk fu mu nekk foog nga dem nga dem yóbbu foofu sa njaboot. commune bu Oulampan si njànkata ba 1 ak Jinaki dalal li ëpp ci daw la xoy yi. Euh, commune de euh, Dinaaki commune yëpp ñu nekk frontière ñu ngi koy gis réfugié yi ñëw waaye ay suñu bokk la ñu bu ñëwee dañ la leen di recevoir. si frontière Gambie am na ay école yoo xam ne toll nañu si ñeent fukk ak juróom-ñett. Euh, li mu élèves yi toll si ñeenti junni élèves identifier école yoo xam ne mën nañu leen accueillir euh, seet jumtukaay yu ñuy soxla pour élèves yi mën a bañ a perdre temps euh, maanaam ay bâche matériel yu leen di accueillir ay enseignants yi loolu yëpp bind nañu si kayit jébbal nañu ko autorités yi. lu ëpp juróomi junni dawlaaxu ñoo dugg ci département yu Bignona ak Ziguinchor diiru benn ay bés. ñu di ko jaajëfal bu baax Boubacar Diassi fële ca Ndar Géej ki nga xamante ni moom mooy njiital mouvement bi euh, di libéral ca kanam nekkoon jëwriñ di dénk lépp lu jëm ci biir réew mi Ousmane Ngom yëkkati na fay kàddu ñeel wàllu Gambie la mu wax nag mooy diplomatie bi nanu ko jiital waaye tamit nañu def seen kéemtalaay kàttan ngir nag euh, jële kii di euh, yaaya Jammeh ca bopp nguur ga ndax gis nañu ni ku dëgër bopp la foofee ca Gambie ñu teewlu ko moom usmaan Ngom ci micro Ousseynou Diop ñu ni Sénégal yëpp nekk nañu benn say nekk nañu benn doole unité pour régler question Gambie bi ma ni ñaari mbir rek moo mën a am benn bi mooy Yaya Jammeh nangu dogalu yàlla xam ni yàlla mooy fal mooy folli te moom ci boppam nangu woon na ni yàlla moo ko folli comme nag moom foo ko fekk mu ngi yore kaamilu alxuraan la loog koo kurusam war na nangu dogalu yàlla xam ni dogalu yàlla bi ñëw na daal di nangu joxe nguur gi su ko deful nag a ah, yàlla de moom suñu borom santaane nii soo gisee lu bon nanga nga ko santaane na ko na nga ko tere fexe ko dindi ak sa làmmiñ boo ko mënul dindi ak sa làmmiñ na nga ko dindi même ak sa xol wante boo ko mënee dindi ak sa loxo na ko dindi ak sa loxo kon nag su yaayee jàmme nanguwul dogalu yàlla li ci des moo di ñu forcé ko jële ko fa delloo si son excellence Seydina Oumar Sy nekkoon jëwriñ ji dénk wàllu jëflante ak biti réew doon ganu xabaar yi tey jile son excellence noo jàngatee diplomatie bi ca Gambie ni ñu ko waxee rek ñaari fan a ci des muy suba gannaaw suba ci Yaya Jammeh nag war a jébbale nguur ga Adama Barrow ni ko ni ko yoon santaane yow noo jàngatee diplomatie bi boobaak léegi. ba le 18 minuit Yaya Jammeh mooy président Gambie woote woon na tànn ku la neex sunu mbokki Gambie yi tànn nañu ku leen neex fal nañu gannaaw yàlla Adama Barrow sartu Gambie dafa ni juróom fukki fan nu fekkee wax nañu ko gañe ki falu war na toog juróom fukki fan yooyu àggagun ci le 18 leen ci àgg à minuit bi yàlla bi yaayaa nangu na ñépp ni alhamdulilah gannaaw gi mu dellu gannaaw yëpp fa la jóge fitna bu am tey foofu la jóge dellu gannaaw bi daal ci sa gis du yoon. naam doxal na yoon tax ba mu waree wax ci seen kuréel boobu bi àttee élection yi dem na ni moom nanguwul e-, résultat yi. waaye kuréel boobu tur rek la fa nekke parce que ñi ko waroon siq d'abord duñu gambien mooy Sénat ba ñaar mhm. biñ leen woote ñoom motuñu pour mën a dog pour mën a dogal dara mhm. kon boog ñu ngi ci situation bi nga xam ni yaaya mu ngi ci sukkandiku pour wax ni su fekkee cour boobu attewul moom du bàyyi dafay jëlal dafay jël euh, guddal jël rek mais dina daanu. dana daanu waaye ñu gis ni ñaari yoon ndaw yi nga xamante ni yaw euh, yabal na leen ca Gambie lajj nañu euh, ca tànk ñu doon dox ndax ba nëgë ni ab ubbeeku amul seen diggante ak Gambie ak nañu ko Yaya Jammeh ak nañu ko bëggee. yéen euh, loolu du du wane ni fa ñu jëm ak Yaya Jammeh dina metti ndax du dem ba nga xamante ni wax dëgg dinañ utiliser la force comme force pour jëli ko fa. yéen journaliste yéenay wax ni lajj na waaye. ñun diplomate yi li ñuy wax moo di ba 18 janvier minuit yaaya mooy président te kenn mënul wax ni ñiy wax ak jàmme mun seen kàddu duñ ko mujj dégg ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan yaaya delloo si xelam daan xolam daan xelam ñun li ñaan mooy li alxuraan ñaan kullama awqadu naaran lil xar atfa allahu fépp fu nu jóge ni dañuy taal safara xeex yal na ko fay mais bu sottaloolee lan la mën a njort bu fekkente ne euh, dem na ba nga xamante ni nii wax dëgg tamit la ca des bareetul waaw na ngeen xam nag mhm. parce que dégg naa ñii naan on est contre la guerre tout le monde est contre la guerre eh? waaye nanu xam ni su fekkee ni du war utiliser force pour mu génn Yahya mooy bañ moo indi situation boobu. waaye tey gis nañu également ni ko waxee rek euh, force boobee bu ñu ca yeggee tey ñu bari ci euh, maanaam waa CEDEAO ñoom bëgguñu ñu dem bay jëfandikoo ngànnaay wax dëgg ngir jëlee fa yaay jàmme waa CEDEAO ñu bari ci ñoom ba. ànduñu ci maanaam ànduñu ci force ànduñu ci. ñoom li nu wax seen communiqué bi. Mhm. yaaya wàccal soo wàccul ñun dinañ jël suñu matuka ñoom loolu la ñu wax génn ci wax boobu dégg nga xamuluñu yaaya waxuñu ni yaaya deful dara Gàmbi ci ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ni yàlla teg na ci bopp réew moomu. waxuñu loolu mais dañ ni su fekkee ni am na yërmande ci Gàmbi su fekkee am na yërmande ci ñi nga xam ni ñoo ko woteel parce que dina nga xam ni dëkk bi dafa xaaj ñaar soo natee lii yaaya am ak lii am daanam Adama Baro Adama Baro eh, du ñaar fukki junne la ko ëppale c'est dix dix-neuf mille voix la ko ëppale donc réew mi dafa xaajoo ñaar yéen ku ci nekk war nga xam ni ki nga xam ni woteelul yow konte na ñun rek loolu lañ leen ñaan ñu def jàmm su fekkee defuñ ko nag président euh, Macky Sall nongu na ñaan bi ko CEDEAO ñaanu pour mu làq yàlla yaaya fii parce que xeex bi yëpp mooy xeex bi ñu tuddee guerre asymétrique eh? ñun ak CEDEAO ak UA ak ONU suñu daanoo ci kawam lenn rek nu teg loxo ci moom ci kawam pour safaan bi bañ a law moom su fekkee situation boobu am na dafay taal daay pour dëkk bi tàkk Sénégal tàkk mu ne ah di ma bëggoon am naa ko waaye du ko am su ne euh, leneen également ñu seetlu ko muy Sénégal euh, li mu dalal Adama Barrow euh, ni ki aser ji ba tey mu nekk fii njiitu réew ma xawma ki ñu ne tey jii moom moo wutu Yaya Jammeh ci ci ci bopp réewum Gambie Sénégal ban message la nga yaakaar ne moom la bëgg a joxe foofu ci dalal li mu dalal Adama Barrow Sénégal li mu wone moo di dafa bëgg a làq Gàmbi waxuma waxuma Adama Barrow de Gàmbi ci ay trouble parce que su fekkoon Adama baro mën nga Gàmbi ak pexe ak doole pijaaya am ca Gàmbi ñëw yow Fatou Kiné yow rek laa soxla lu ñuy xeex xeex man ci xeex bi yow rek laay wut dina yomb ma def suma doole yépp pour ñëw teg loxo ci yow wala rey la loolu la ñu bañal Gàmbi su fekkee loolu amul mën na ko rey te kon daanu nekk ci lu tubaab tuddee vide juridique. est-ce que kon du sécurité am la ñu la ñu nekk di di aar nii fi mu nekk. ah tout à fait tout à fait Sénégal sécurité am euh, sécurité. te Gambie la aar par-delà la personne de du président élu Adama Barrow dégg nga donc Sénégal def na waru garam ngir kaaraange Gambie ngir kaaraange également Adama Barrow tey jii bu ñu demee ba euh, Yaya jamee lànk euh, teg fa mu euh, fa mu teg tànkam ne du ko teggi tey bu ñu demee ba yegg ci prêter serment est-ce que Sénégal mën na ko permettre moom mu prêter serment fii Ah, xamuma lu ci charte Gambie wax xamuma ko waaye li gënoon moo di mu nekk ci biir réewam prêter serment ci biir réewam ni may seen kilifa. ñu gis également mu mu participer woon ci sommet France Afrique moom moom Adama Barrow euh, loolu également lan lay wund ci sa gis-gis. du ma moo di. Mhm. ñooñu ne woon ca sommet France Afrique su leen neexul woon du ñu ñëw te ko bëgg woon ni moom la ñu àndal daan ko jàppale ci fànn bu nekk nag jàmm ak salaam jàmm ak salaam walla su fekkee président Yaya dafa décider jàmmarloo ñun ah kooku moom moo jël décision boobu. waaye na xam ni xel ak bët du yenu waaye xam na lu bopp àttan. xam na lu mu attan ñu gis également tey jii Gambien yu bari ni ñu ko waxee ah, mat na ay centaine baa mu ëpp ko euh, ci début mois de janvier bi ñu ngay daw jógee Gambie di làkkutu ji Ziguinchor ba ci sax commune yi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci euh, ci frontière beek yooyu est-ce que loolu également doonu lu metti fi mu ne nii ci askanu Gambie ndax mën nañu daw li nga xamante ni nii moom la ñuy dund ca Gambie. daw ca ba ngay am tànk lu nu xaar bee dégg sox yi di dal ñu door a daw donc ñoom fi ñu nekk seen jàmm la bëgg seen jàmm yaram seen jàmmu bopp jàmm ci Gàmbi moom la ñu bëgg su jàmm dellusee see Gàmbi dañuy dellu Gàmbi loolu yan conséquence la mën a am njeexital yi nga xamante ni mën na ko am ci Sénégal moo xam ci wàllu kaaraange wala boog ci wàllu diplomatie. d'abord ci diggante yow man ak keneen teraanga sénégalaise gan ñëw na dañ koy dalal su gan ñëwee dañ koy dalal su fekkee leneen la nag ñu jéem a taxawu leen. bépp diir biñ fi nekk ba nga xam ni tiis bi nu am jóge seen dëkk ak seen kër ñëw feneen di nekk gan ñu bañ a tumuranke wante yaaya xam nañ ni am na gànnaay laaj na également ay dispositions yu am solo ah, ngir dalal réfugié yooyu ni ñu ko waxee xam naa ni xëy na lii lañ jot a wàññeegum waaye xëy na la ca kanam raw li gën ndax duñu dem ba nga xamante ni daañu gën a sakkan te fi mu ne nii ni ñu ko waxee. ñi ngi liggéeyagum ci bët saalumu réew mi. li ma déggagum de eh, dalalukaay yi ñi ngi ñi ngi préparé pour que ñu dalal leen dina xat naam situation bi moo ko laaj waaye teranga sénégalaise. dana appliqué fu mu mënti doon te daanu woon itam su fekkee dem ba xeex rek daanu woon Yaya Jammeh suñu diisaayu loxo dafa naagu fi mu nekk nag déng waaye ñun tam war nañu xam ñun waa Sénégal nin koy waxee ndar rek le 4 avril sunu soldaar yi duñu jóg rek pour maaj maaj rek déedéet dañ leen di won ni maaj boobu ndax ñun noonu la ñu waxaa ah, défilé maaj boobu dañ koy def pour won Sénégal ni déet bu nu am benn tiitaange mhm. seen kaaraange sunu armée dana ko te ku jóg ni dangay ngay xeex ak Sénégal ci kàttanu yàlla da ngay jàmm gën ay naam est-ce tamit euh, Sénégal warul fi nekk ni jël matuwaay yëpp te xam ni nag xeex bi ñaan ñaanuñu ko yàlla waaye buñ ca yeggee kenn waru leen caa jiitu. forcément ak foo mënti dem ci ci gaam bi xanaa nga jóge ci géej waaye soo jógee ci frontière frontière terrestre Sénégal ngay dal kon boog ñun lu xew gaam bi foog ñu yëg ko. yaa nekk jàmm su dul jàmm itam yaa yàlla may ñu àttan ka eh, ñun bëggunu xeex ak Gambie Sénégal xeexul ak Gambie du Sénégal mooy dem daanu ci kaw Gambie Sénégal dafay bokk ci troupe CEDEAO Union africaine ak ñeneen ak ñeneen pour daanu ci kaw Gambie ñu di ko jaajëfal bu baax son excellence Seydina Oumar si may fàttali ni nekkoon nga jëwriñ ji dénk wàllu jëflante ak euh, biti réew sant nañu la gërëm la ci wiis bi euh, xibaar yi ñu wëyal ko ak njiitu jëwriñ bu Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne moom ma nga woon ca diwaanu euh, Louga ma ngay sàkku nag ci responsable APR ya fa nekk ñu joxante loxo liggéeyandoo ngir am ndam ci woteek législative yi ñu dëgmal Mohamed Boun Abdallah Dionne yëkkati yooyee kàddu ci bi ñu duppee rek rentrée politique bu njiital mouvement bi ñu duppee dolli Macky euh, di Mamadou Mamour Diallo moom ma ko jiite ca diwaanu Louga nekkit directeur national des domaines euh, Thierno Fall ci leeral la coow lu bari ci diggante responsable APR yi fii ci diwaanu Louga naam amoon na fi waaye tey jii dafa gën a yokk ginnaaw bi nga xamee ni si kii di Modou Mamoun Diallo gane si na langu politique gi mu daal di jur nag ab dualité bu mag ci digganteem moom ak kii di meeru dëkk bi di Moustapha Diop boobaak léegi njiitu APR jógul ci di leen woo ngir ñu bokk nekk benn loolu sax mooy yóbbante bi nga xamee ni si moom la jox kii di njiital jëwrin li bi mu ñëwee fii ci diwaanu Louga. moo la ma ne ko ban mu ne unité unité unité unité nag mooy bennoo donc président loolu la santaane fii ci Louga. Mohamed Ben Abdallah Dionne di xamal responsable APR yi fii ci diwaanu Louga que ñoom benn adversaire rekk la am mu di opposition bi. adversaire bi fii ci Louga tuddul Moustapha Diop tuddul Mamour Diallo. du dul Mbéri Silla du dul Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñëpp a ànd Bokk Yaakaar adversaire bi ca làmb ja seen l'opposition directeur national des impôts jël mouvement bi di dooleel Macky seyal ko ci biir APR waaye nag di tàllal loxo mbooleem responsable yi ci diiwaan gi ngir ñu ànd liggéey di wax fii mbokk yi ci kanam premier ministre ak délégation bi mu àndal te Mamadou Mamour Diallo ak ay militant am nañu pour àndandoo liggéey joxante loxo comme ni ñu ko président la bi Macky Sall bépp kilifa bu nekk ci biir département bu Louga maa ngi lay tàllal loxo di la ñaan ñu àndandoo joxante loxo liggéey ngir may président la bi ndam yooyu njalbeenu mitin bi metti woon lool ak jafe-jafe yi nga xamee ne rek dugg sik meeru dëkk bi ak délégation bi indi woon na ko loolu nag juróon jaxasoo bu metti bu nga xamee ne bi mënoon na fa jaare yàqu ba faw Eh, ca Louga la ñuy des eh, ku jéeg politique gi ñoom it nee nañ kenn du leen ko yóbbul Barthélemy Diaz moom it ma nga woon ca luga eh, sàkku na nag ci ku jéeg politique gi ñu fexe ba daal di tëral benn liste ci législative yi ñu dëgmal la ñu bëgg rek moom mooy ñoom it am ay place yu bari ci pencum ndawi réew mi ñëw moom Barthélemy Diaz ma nga woon foofee ci bi ñuy lancé mouvement pour le développement du Louga ñu teewlu ay kàddu mag Thierno Fall. lu am biir parti socialiste ay mag nga xam na ni daal ci gàttal euh, gëmatuñu seen ëllëg gëmatuñu ëllëgu parti socialiste gëmatuñu ëllëgu Sénégal ñoom lu ñu gëm tey mooy ëllëgu Macky Sall kon nag ne yàlla jàppale yàlla may leen xolu muñ ñun nag lu ñu gëm mooy ëllëgu Sénégal ëllëgu parti socialiste moo tax tey ñu ne ñun dañuy bàyyi waxtaan ci ay réunion yu amul benn solo dem ci nit ñi dem ci askan wi jëm a waxtaan ak ñoom. jéem a lëkkaloo ak ay doomu réew mi xool lu ñuy mën a samp suñu benn list ndax suba suñu ne élection législative ñu mën dëgg wiiw ci gàttal tànk yi tey fii ci Louga mooy dañ fi ñëw tey pour ndokkale si kii di Ass si la sargal tamit askanu Louga ne leen tànk yi tànk yi yaakaar la te kii di Ass Diobé Sylla ñu ngi koy encouragé di ko félicité bu ñu euh, jógee Louga dañuy yegg ba diwaanu euh, Kolda ak euh, njiital mouvement bi di UCS Abdoulaye Balde Abdoulaye Balde nag moom nee na nguur ak Sénégal na gën a jàppale askan wa foofee ndax la ñu fa nemmeeku mooy amul ay programme yoo xamante ne nii ay programme d'investissement la yu askan wi mën a sukkandiku nag ngir wéyal seen i projet ba bokk amal fa ay liggéey yu am solo foofu daal jàpp na ni nguurug Sénégal wàcc na fa loxoom ñu teewlu ko moom Abdoulaye Balde ci micro Abdoulaye Diallo wax naa foo foo dem rek Sénégal daanaka même jafe-jafe yi la peut-être que am na différence tuuti ñoo xam ne am nañ déjà tali mais fopp foo xam ne dem naa fa dañ ma naan amuñu courant dem ba jóge naa benn nga ba Kolda amuma benn dëkk boo xam ne am na courant euh, jóge am na ay amuñu tali amuñu euh, am ñu école donc yooyu yëpp defe naa yooyu moom la nit ñi di faral di wax mais rax ci dolli zone yoo xam ne ñoo nekk si zone frontalière yi. defe naa seen jafe-jafe dafa gën a tar rawatina boo demee zone ñoom comme Vélingara kii ñoom Saly Kégné zone boobu dem ba ay wasadu côté boobu euh, nit ñi pour am euh, réseau électrique dañuy yëg dañuy xaw a réseau téléphone sax dañuy yëg ba ci kaw bu ñu naree faju dañu dem ñii dañuy dem Gambie ñeneen dañuy dem Guinée Bissau donc je pense que programme d'urgence pour le développement des zones frontalières programme bu am solo bo xam ne man appuyé naa ko nee naa ko programme bu baax la. mais nañu def ay jéego vraiment pour que le plus rapidement possible programme boobu mën a entrer en action parce que je pense dina andi andi ko en tout cas dina jàppale bu baax a baax population yi. Euh, ci Rufisque di Tëngéej boulevard Maurice Guèye euh, soppi na xar kanam jàpp nañu nag ne waroon naa doon maanaam ab euh, diwaan boo xamante ni ku ko xool xoolaat ko ndaxub taar waaye tey jile yàqu na ndax ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo fa nekkoon daanaka di fa amal seen yëngu-yëngu ci anam yu dëpp wul ak yoon amal nañ fa nag ab opération ngir jële leen fa askan wa nag lañu bëgg mooy xeetu opération yooyu nañu koy wéyal ndax lu ci bari mairie bi bu ko dooree itam du ko faral di yeggale te opération yooyu tamit jàppale ni ay koppar yu bare baree bari lay laaj dañ ci ànd ak Ousseynou Thiam Bira gannaaw sax opération désencombrement bi nga xam ne ni maire de ville amal na ko jamono yi terewul nag lii di boulevard Maurice Gueye mel na na mu meloon lii di garage flottant yi ñii di jaaykat yi ak yeneen commerçant yi daanaka dellusi nañ ci lim bu takku ki lii di boulevard Maurice Gueye mu doon nag lu naqari lool lii di askanu Tëngéej wi doon yaakaar weneen xar kanam. parce dëkk Rufisque ku nekk xam na ne vieille ville la. risque boo xam ne booy xool xam ne waroon na am sax statut région parce que na am na ginnaaw am na kanam am na géej am na àll mais tali bi mooy boulevard mooy suñu problème c'est une plaie comme ni canal mel noonu la boulevard bi mel vraiment jaxasoo na xamuloo fuy quoi c'est un dérèglement de tous les sens kenn xamul fooy taxaw oto yi bari nañ fi et puis nit ñi daal euh, dunduñu quoi en quelque sorte buñ désencombré ba waxoon ne demoon naa ba ne man Rufisque en train de foo taxawoon nga gisaat kër gi ku ne xam ne Tëngéej foo toll da ngay seen koñ boo ko toll ngay xool géej loolu rafetoon na trop et ça faisait une fierté mais des fois da ngay yàgg tu as le de dire que même tu es Rufisque quoi parce que tali bi nii ñu ko bàyyi nii boulevard bi ñaaw na ba ci kanamu yàlla. boulevard Rufisque bii nii route nationale bi melokaan bi ni ma ko gisee métti na ma lool Rufisque daf dëkk yëpp dañ ko raw. mu doon nag situation boo xam ne bii ñu bëri jàpp nañ ne nag ñàkk suivi rek moom moo ko waral ki lii di équipe municipale yi nga xam ne nii dañuy amal saa su ne ay opération de désencombrement. désencombrement bu ñu def la mais créé na na encombrement parce que ñun nañu. donc c'est un retour à la case de départ et puis plus sale encore man vraiment kontaanuma ci trop. dañu war a installer le réflexe du bon citoyen dañu war a installer le boo xam ne pour montrer ne nit ki moo war a jël le problème de l'insalubrité en place mais actuellement ni ma ko gisee nii vraiment neexul pour sax nga nangu ne refuse quoi nga. bu amee une situation ñu teg ko na am suivi mais en constate que ne amul benn suivi. ci xaar ñu jox lii di boulevard Maurice Gueye beneen xaar kanam nag ñii di askanu Tëngéej nag di woy ak seen naxar. Ousseynou Thiam cant ak ngërëm ñeel na la ñu dellu ba diwaanu Ndar Géej wax bi yoon ci accident yi nga xamante ni nemmiku nañu ko ci tali bi mu jéggi dayoo lool nguurug Sénégal taxaw ngir euh, wàññi ko bu baax a baax naka noonu it dana am ay coppite yoo xamante ni daañu ko teg muy nag fexe ba bépp jumtukaay boo xamante ni ñeel na wàllu dem bi ak dikk bi ñu gën koo sécuriser jaarale ko nag ci xarala yu yees yi ba ci permis à point yi dañ ci déglu euh, directeur général bu transport euh, des transports Cheikh Oumar Gueye pour xeex wàllum insécurité routière boobu loolu moo ñuy yóbbee ci toujours ci biir xeex boobu ñu numériser sécuriser suñu étude de transport bi maanaa euh, euh, suñu carte grise yi suñu licence yi suñu agrément yeeg yooyu comme ci kayit la mu mel ni basang ñëpp xam nañu luy wax léegi boobaa du ñu bëgg mu doon comme suñu carte d'identité numérisée yi wala suñu carte bancaire yi wala suñu passeport numérisé yi mu am biométrie Euh, am photo incrustée comme ni ñu defee enrôlement yi si si carte d'identité yeeg yu ñu demee ba nga xam ni euh, falsification wala wala fraude yooyu daanaka kenn dootu ko mën a wax si waxu wàllu wàllu document de transport euh, kuy waxal yàlla ku ne xam na ni fraude bi bari na lool ci secteur de transport ci document yëpp muy permis yi muy carte grise yi muy licence lépp ay ay fraude rek la ba mu jeex te loolu bu fekkee du ñu ni ñu bëgg a yaakaar naa comportement yi war nañ ko mën changer te pour changer ko nag. système informatisation rek moo ñu mën a jëlee ci wàll woowu te euh, pour ñu mën dab ñeneen ñi daañu nag daañu def application de la loi parce que le président l'a dit na nañu xolaat ni ñuy doxal joxe permis yi daan ci waxtaan tout à l'heure nañu xoolaat ni ñuy joxe visite technique yi waaye nañu renforcer le contrôle tàggat yaram ni ko bàkk bi dundee suñu gaynde yi ñoo jiitu eh, ci seen groupe eh, gannaaw ndam li nga xamante ni am nañu ko démb eh, ci kaw Tunisie mu nekk nag seen jongante bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations boobee ñuy amal fële ca Gabon ñaari bal ci dara la bale ya nag ñi leen dugal Sadio maane la ak Kara ñoom nag jàpp nañ ni démb ñoo sauvé Sénégal ci jongante boobe Mame Fatou Ndoye Hamza Diallo victoire bu teel a dessiné wu Sénégal monté wanewul jeu bu dal xel teel a taal caaxu Tunisie yi juróom-ñetteelu minute gaynde yi am contre Sadio Mané yéegal bal bi suruxal ko Cheikhou Kouyaté défenseur tunisien bi padd ko arbitre bi sifflé penalty Sadio Mané dugal ko gaynde yi commencé dugg ci match bi nank-nank waaye tunisien yi di jéem a fexe nu ñu dellusee teewul Sénégal def break bi euh, gannaaw karambo ci ba mu mbëkkee corner bu Balde Keita tiré Sénégal def li gën a metti ci pàcc bu njëkk bi doonoon na match bu metti na parce que équipe bi ñu doon yaakaar loolu doonoon na ñu xam ne dañu xarañ euh, causé nañu problème yu bari mais sant yàlla léppoon solo def nañu. Euh, c'est bien on a eu la victoire mais il faut pas oublier qu'on a beaucoup concédé d'occasion on va travailler sur ça mais voilà on est content. ñaareelu xaaj bi nag Sénégal sonn lool tunisien yi sëpp leen am ay occasion yu bëri poto yi Abdoulaye Diallo mi ñu tànn homme du match ndax arrêt yu baax yu am solo yi mu def tax ba Sénégal jëlul but. plus important, c'était de gagner. Bien commencer cette compétition, c'est ce qu'on a fait ce soir. Après, la distinction individuelle, c'est juste du bonus, on va ay jafe-jafe yu tar ci deuxième période bi waaye Sénégal def li gën a am solo mooy jël ñetti poñ yi nga xam ne mooy tax mu dugg ci compétition bi ak ndam Sénégal nag ci ñaareelu matcham war a dajeeg Zimbabwe dina am ñetti fan ngir noppalu defar taxawaayam rectifier erreur yi. Il ne faut, pas se, focaliser directement qu'on est déjà Je pense qu'on on a fait un match et on a eu trois points. Donc euh, maintenant, on va, essayer, on de ne pas se la pression. On va essayer de prendre match par match et pourquoi pas gagner tous les matchs. ñaari entraîneur yi tàggat ñaari équipe yi àdduna ñu muy Henri Casper ma yore équipe bu Tunisie ak Aliou Cissé mi tàggat sunu gaynde yi Sénégal laaj ak tontu dox na seen diggante ak Mame Fatou ñu teewlu leen. simplement on regrette euh, waaw match bi nekk na match bu ñu metti lool surtout ñun ñi nga xamante ni ñoo ëppale occasion mën naa ni jàpp ni résultat bi nekk na résultat bu bon ndaxte su ma sañoon dëgg dañuy am euh, dañuy démarrer compétition bi ak démarrage bu am solo waaye eh, nekk na équipe bu Sénégal bi tey tey jii nga xamante ni ñoo ñu ëppoon réussite déjà ñaari bi ñu dugg yëpp ci bal arrêté yi la te ñoom assuré nañ ko wante man tey sama xale yi dañuy am ay occasion yi nga xamante ni bari na lool te dañ ko raté. maintenant léegi nag li ci des mooy gën a góorgóorlu bu baax pour euh, sunu match bii di ñëw contre Algérie ñu changé waat beneen xar kanam. trop un adversaire direct aussi Algérie. l'adversaire est, est très bon c'est des joueurs de qualité. waaw équipe bi ma jàkkaarloon tey di waa Tunisie tey dañoo nekk ay joueurs yi nga xam dañu technique lool am ay qualité yu bari waaye Sénégal wane na njàmbarteem te nangu naa ni bari nañ ñoom waa Tunisie ay occasion yi nga xamante ni mënoon nañ ko dugal mën nañ jàpp ni yenn yi euh, chance bi tamit euh, nekkoon na tey ci équipe bu Sénégal. Aujourd'hui, on a été fragile par moment. Donc c'est vrai que c'est des Maintenant, il y a, a eu un gardien qui a fait un, grand match seetlu naa ci it ni Abdoulaye Diallo nga xamante ni moo nekk gardien de but bi eh, am na taxawaay bu am solo moom sax d'ailleurs moom lañ jox homme du match eh, Abdoulaye Diallo nag lii moo wane nii gardien bu mag la ndaxte ci éliminatoire yi wanewul woon bu baax boppam léegi nag Coupe d'Afrique tamit dafa am solo bu baax ñu am ci gardien yu am solo pour mu seen taxawaay dafa am solo lool ci équipe bi. moyen et léegi nag moo di ñu defaraat rectifié wu pour yeneen match yi ñu changer beneen xar kanam. au niveau c'est la gagne. Euh, Sénégal Tunisie suñu équipe bu télévision Futur Média dem na ba kër euh, Sadio Mané ga ca Bambali diggam ak Sédhiou toll ci fukki kilomètre ak juróom-ñett di Bambali su ko waxee euh, foofe nag seetaan nañu ni nga xamante ni noonu la ñu doon xoolee match Sénégal Tunisie laata match bi ak gannaaw match bi Bakary Konté Sala Samb ñoo fa doxantu woon. ay ñaan yi bëri fii ci diwaanu Bambali yi pour équipe nationale bu Sénégal daldi di am ndam. jagleel ko équipe bi ñaan moom ñëpp def ñu yëpp pour équipe bi yëpp. ñaan moom bàyyi ñu ci kenn dañu bi moom dinañ ko gagné moom bu soobee yàlla. Mm. balaa match bi di door Bambali ñoom ñu am confiance di ne équipe nationale day gagné. Sadio moom mu ñefe su ko dugalul mu jógaa ñu dugal mais. su su fekkee mën na dugal bii bi moom moom na dugal boppam mais su fekkee mënu ko moom mu xam ne moom man bii bi moom mënu ko dugal su ma ko paasee day dugg moom na ko joxee mu dugg. fii ci diwaanu Bambali ñi bëri dañuy dem kër Sadio Mané daal di suivre match bi Sadio Mané daal di ubbi caax yi ci penalty Bambali explosé. man fi lu ma ko gisee moom ñii la war a demee daal. man naari moom néew nañu football moom ñi la ñu war a football ñu gagné moom comme Sénégal gagné na moom dañuy sant yàlla moom. non li ñu doon moom gis leen loolu moom nee la nii la war a doomee daal parce que naari ñoo neexut a football moom lu ñuy football nii nii la et dañ ko mérité man de moom maa ngi leen gërëm di ñaan. ñu dem fu sore sore après ñu jël coupe bi moom loolu la ñuy soxla moom Sadio tamit ñu ngi si waa Bambali waa région Sédhiou waa Casamance yëpp waa Sénégal yëpp ñu ngi xale bi bu juddoo jom rek lañ ko xamee depuis mu nekk xale xamoon nañ ne dina yegg fu mu nekk nii te bu neexee yàlla ak yonent jaayam sama kan la bu neexee yàlla ak yonent coupe bi dina ñëw Sénégal xale bi daal amul lu ñu koy wax yaru jàppale na mbokkam yi jàppale na dëkk bi yépp Sadio Mané ñoom ñu ngi koy woowee fii ci diwaan bi ñaancoo loolu nag mooy buur ñuy ñaanal bu baax suñu gaynde yi Sénégal Tunisie démb la woon Sénégal dóor Tunisie ñaari bal ci dara ñu wax ci làmb ak face à bi waroon am ci diggante Ness ak Sa Thiès ca Linguère mujj la am ndax moom moomee di pensionnaire bu école de lutte euh, Double Less mujjul ñëw bu ñu sukkandiku ci organisateurs yi nag joxewuñu lenn loo xamante ni mënees na cee sukkandiku ba wax lu tax Sa Thiès kon teewul ci face à boobee mu nekk nag loo xamante ni itam ñu bari naqarlu nañu ko Euh, ci euh, maanaam ña fa teewoon Cheikh Tidiane Dione Younous Diatta. Sa Thiès teewul ci face à bi waroon dox digganteem ak nees fële si Linguère face à face bi ni mel GFM entertainment daal di woon ko organisé fii nii ci stade municipal bu Linguère la tax ñëwul nag ba léegi kenn xamu ko. bon xaw ma lu ko téye mais bu dee jàmm la ñu ko ñaanal rek jàmm bu dul jàmm yi yàlla ko te su ma defal jàmm xaw ma lu ko téye. mais maa ngi ko ñaanal yàlla bu ñëwul. non loolu du ma moom man li ma war a mooy suma contrat ma signé ko ñor war war koo remplir. ñàkk teew bi nga xam ne nag pensionnaire bu école Double Less bi def na ko nekk na loo xam ne ëlëm na ki nga xam ne moom mooy promoteur bi. aujourd'hui nañu delloo si seen xel. star xëy na mun nga ko nekk sa biir koñ mais munoo nekk star ci journaliste bi munoo nekk star ci ñeneen yi Euh, je pense que tey euh, Sa Thiès ak moromam yi laay wax parce que tey il faut ñu respecter non seulement sponsor bi amateur mais respect c'est-à-dire mbër yi tey li ñu yaakaar moo amul pour nekk star da ngay respecter contrat bi nga xamante ne parce que déontologie éthique bu amul noo dem c'est impossible aujourd'hui il faut que déontologie éthique am. daanaka kàddu gi benn la Charles fay ne moom ba léegi xamul lan moo tax kii di Sa Thiès ñëwul amaan naay daan mun nañ ko teg ci kawam waaye ba jamono ji amul benn explication boo xam ne jox nañ ko ko. gox lañu ñu jël Jolof Linguère la jël jox ko ko ba waa waa Jolof yëpp génn ma ànd ak la famille euh, Ndiaye ñoom ñëpp ñu ñëw teeru fii euh, annonceurs yi teeru ñëpp a ñëw moom ñëwul bu fekkente ne daal euh, du lu du am balaa raison bu balaa moo ko kii di kooku kon mooy manqué respect manqué respect ñëpp. te nemeewu ma xalaat loolu parce que bu dee loolu la tam mooy que daal euh, di nga xam ngay liggéey ak ñoom ak loo loo def ak ñoom loolu loolu rek la. tànn nañu léegi di wax benn rendez-vous rek am am na yeneen face à face yoo xamante ne fas yéene nañ ko def mais du ñu jël suñu xaalis di def loo xamante ne lu ñu fi def tey di ko dépenser di def loolu ba pare di leen jox lépp loo xamante ne moom la leen jox pour que lii di ñu dal kooku du ko nangu kooku mënul ne. combat Ness Sa Thiès ñu war ko sëgg juróom-ñeenti fan ci weeru avril ci atum 2017 stade Demba Diop beneen face à face jamono joo xamante ne kii di Luc Nicolayenko war a amal benn gala de lutte fii ci stade Demba bu Dakar. Cheikh Tidiane Dione ñu di ko jaajëfal yéen i seen xëyu njëkk Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gayndey Sénégal yi suqi nañu jaxaayi Tunisie yi ba ñu ne làññ Le Soleil moo ko wax Coupe d'Afrique ba ca Gabon Sénégal Tunisie démb la woon ci ngoon gayndey Sénégal yi am ndam ci kaw jaxaayu Tunisie yi ñaari bal ci dara yéenekaay bi xëy ñu fàttali ne Sadio Mané moo njëkk a dugal bitub Sénégal gannaaw ba ñu téqee Cheikhou Kouyaté mu daanu arbitre bi jox Sénégal penalty Sadio Mané dóor ko mu dugg ñaareelu bitub Sénégal bi Kara Mbodj moo ko mbëkk mu dugg njiitu réewum Sénégal di Macky Sall Soleil nañu félicitation Aliou Cissé ak i gayndeem ci ndam li ñu am démb stade yéenekaay nañu gayndey Sénégal yi tànk bu baax bi la ñu yeewoo moom la ñu duggee ci coupe d'Afrique bi xëy na sonnoon nañu waaye génn nañu ci ndax fexe nañu ba gañe ñaari bal ci dara te kenn dugalu leen mu di victoire bu njëkk ci coupe d'Afrique bi ne bakkan ba tàmbalee ak léegi ay match nul rek moo ci am Sénégal poule B ba mu bokk moo ca jiitu le témoin nañu muy benn ngir gaynde li ñu def démb mu di gañe Tunisie ci match coupe d'Afrique ba mu gëjee am ak léegi mat na ñaar fukkeet ak juróom-ñett 28 ans les ko nañu Sénégal dóor na démb Tunisie ñaari bal ci dara waaye nag daj nañu dëgg ne laata ñuy génn ca match ba daj nañu fa lu mburu dajul ci pour central bu équipe bi ñaar ña fa nekk di Karamboje Kalidou Koulibaly ànd ne ci journal bi ñoom ñeenti défenseur yëpp amu ci kenn na dañu ko taqalee deewoo ko ba génn ci li ñoom Sadio def démb Vox nañu ñaar fukket ak juróom-ñaar a ngi amu fi Aliou Cissé mi tàggat gaynde yi ñu ci yéenekaay bi ndam rek am solo ci anki yéenekaay mën nañu fa sama suwar jikkoy géree dëgg la wane yéenekaay bi nañu waaye gayndey bu ñu ñibbee ba dem toog war nañoo gërëm bu baax a baax seen góol bi di Abdoulaye Diallo ndax bu dutoon ak moom lambaay dana ñaaw ba ñuq footballkat yi yi ci xët mu njëkku yéenekaay bi enquête nañu gaynde yi gàñe nañu démb waaye wane wuñu lu dal am xel l'observateur nañu li war la gaynde yi def démb seen digg ak tennis yi la xewoon démb ca max nañu Sadio Mané nañu xam nañu xëy ne am na lu ñu war a jooy ci suñu football Diao Baldé Keita nag journal bi nañu moo fa mer mer mu rëy ndax ba ñu footballee ba toll ci juróom-benn fukki minutes ak benn maanaam 61 minutes dañu ko génnee dugal Ismaïla Sarr génnee googu ñu ko génnee moo ko miti ba ba mu génne bitéelum ndox ba ñu ko doon jox da koo gedd fas kanam gi dem toog beru ba ba muy ñibbi Diao Baldé Keita waxut ak kenn entraîneur bu Tunisie di Henri Casper Sack ni ñu ci nekkaay bi dafa mooy démb ndam li gaynde am ci kaw Aigle de ak anam yu ñu ko amee Le Quotidien mi ci dégg-dégg bu rëy bi xëy ko waxee nii succès aigle ndam ci kaw Tunisie waaye ci anam yu métti la Sénégal xëy ko feelu dëggal ko victoire dans la douleur góor ba Abdoulaye Diallo mi ñu ne moo toj max ba di homme de max nañu ñu gaynde yi génn nañu ci ki ci génnee nag moo di góor ba Abdoulaye Diallo démb ca Gabon ba Tunisie di dóor Abdoulaye Diallo di génnee fekk na ca Louga meneen Diallo di Mamadou Mamour Diallo di dugg ci politique direct ay fa nañu Mamadou Mamour Diallo directeur des domaines rentrée rëy république bit fa lañ joxonte woon daje ci njiital premier ministre bu Sénégal Mahammed Ibn Abdallah Dionne la Sénégal nañu Mahammed Abdallah Dionne ba mu gisee la mu gis ci Louga ca la président Macky Sall bu tëddee na nelaw ba yandoor le soleil nañu rafetlu na bu baax baax unité di booloo gi am ci responsable APR ci Louga la tribune nañu ca waxam ja xamal na maire bu Louga di Moustapha Diop ak Mamadou Mamour Diallo ne leen yéen ñaar du ngeen ni borom xew nañu fa tàllal naa samay loxo Moustapha Diop ngir ñu ànd liggéeyal président Macky Sall fii ci Louga anki dina kay nañu Mamour Diallo toj na Louga le témoin nañu xaar na ko ñaar ñaar ñi amee fan ñi parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall nañu diggante ba jeexagul ndax ñooñu Ousmane yi ñoo ci bëgg dugg léegi xeexa Khalifa Sall raag ba naaw la nar Walf Fadjri nañu keroog samedi ba parti socialiste di amal seen socialiste nañu dara dañoo daw wëqët ndax xam nañu bu ñu fi teewee du ñu am lu ñu wax le quotidien nañu El Hadji Mansour Mbaye nee na noppi na ngir dox tànki jàmm maanaam médiation ci diggante Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall Macky Sall fat na Adama Barrow bi la l'observateur njiit réew ma ñu fal ca Gambie te Yaya Jammeh may ko fu mu yegg ak nakam di Adama Barrow Macky Sall làq na ko ci Ndakaaru ma nga ci Almadi CEDEAO mi war a lijjanti coow la ca Gambie la joxe ngir ñu lijjanti la ca Gambie lu ko tax na lu tollu ci juróomi juróomi doom doomi aadama yu fekk Gambie daw nañu génn Gambie ñoo ngi Sénégal ñoo nga ca Bignona libération xëyee ñu la amoon ca waxtaan yi doxoon ci diggante ndaw ya CEDEAO yónni woon ca Gambie ak Yaya Jammeh waxtaanu ñaari waxtu la ñaari waxtu yoo xam ne journal bi na nañu Yaya Jammeh waxu fa luñ mën a dégg ay délire maanaam waxi kasaawa kasaawa ak waxi balla puy de la fa nekk woon ñu di ko jaajëfal bu baax ma Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it cant ngërëm ñeel na leen rédaction bi dig na leen daje 19h30 ak 20h ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm ak programme yu télévision Futur Média